waaw kii kii nak mooy Pikine. waaw waaw xaaral ma xanaa sama rek. xanaa ma sama taxawaay. sama taxawaay. yàlla na yàlla nga fay can. tolloo nañu léegi wala tuuti. waaw ma wàcc jëndal ma wàcc jëndal ma kurbe wu yaay. xanaa bay ne booy ci sant baax mi la. ñu sant bu baax di jox ñëpp seen wàccuwaay di ñaanal ñëpp di ñaan Pikine yàlla fi jàmm sax ak mais Malaw Pikine ñu ne benn bopp la kenn mënu koo mu mel ni tey loolu wanewaat ngeen ko ba ma seen Pokola Balde benn open press si benn stade war a bëre ci benn bés muy dimanche 5 mai. loolu loolu yàgg na Pikine waaw na Pikine maanaam dafa bëri ñoo xamante ne ay waxtaan yoo xam ay waxtaan yu yàq bëgg Pikine booloo mais Pikine mënuñu woon taxali ko. gis nga ñun ñuy ànd ak mbër yi dañuy fekk jàmm di ànd ñun suñu te mbër yi amuñu problème mais ñi nga xamante ne nii da leen di bay xaay da leen di bay xaay te làmb ñuy wax ne yàq ñoo ñoo am problème mais ñun amuñu problème man xam naa leer ci mbër yi ay ëmb seen booña ama dañoo am problème ñoo xamante ni tey bi ñuy départ xalaat ñu woon seen ànd dañ tabax kër 25 millions ñun booñaa bi ñuy ànd ak moom xalaatuma woon ci àdduna dina am oto moom. ci cerax 6 ans. ci vélo vélo sama koñ. waaw te ñi nga xamante lekk xaalisu làmb di wax ñu ñu leen di ñuy wax ñooñu ñoo am problème parce que bu ñu waxatul dootuñu lekkati. mais ñun Pikine waaye amuñu problème Pikine làmb dafa bokk ci ñun. waaw. làmb da cee bokk. waaw Pikine. waaw maanaam aspect aspect aspect boo gis ci sport dañ koy bokk démb fii stade bi dañ ko bii ba fees tey jii nañ ko ba mu fees Moro ñaan la Pikine mooy Sénégal Moro mu ngi ñu waa Pikine am am jàmm mais ñun amuñu problème amu ngeen yow lii maa lii test rafet la ci ëmb leen li mu def nii tey booy nga xamante ne ñooy topp ne ginnaaw ku ci mel ñoom Pokola ñoom Jacob Baldé ay presse ay caatu bosom ay sopp day tax ñooñu am cohésion xam ñoom tam nii la war a doxee waaw li initiative bu sa Boy ñang mu melni mom tamit gis nañ ko mu melni yu melni su amé bok na ci ñi nga xamné da ci dox ay tank ba yu melni faral di am ak ñeneen ñi muy ëma sen muy Ama ak ñeen wër pap sar Boy ñang mom tamit taxawayam bir Pikine parce que man nañ ne ñepp Pikine la way yow ku la xam-xam la ak mom waaw koku mom sama digënde ak mom mu naa sama frère sama lepp la mais awma ma problème ak kenn man Pikine awma sans sens fenn mais niki di nga am pété bo xamanteni ni nii ñaar moy ko def. mais maanaam lii dafa rafet. waaw ñuy xool lii rafet ñi nga xamante ne dëkku ñi nga xamante ne nii dëkkuñu Pikine ñuy pour jaxase Pikine ndax xaaj bu leen jox ñuy lekk. waaw Pikine waaye foofu xam loolu. ñu leen di prégal nekk ñoo xamante ne nii ñu tekkul dara lañ ay nit leen jox xaaj ñuy wax ay ñuy wax ci pour jaxase mais Pikine waa dëggantaan. laay laay la laay am seen Sa ñaanal yàlla Eumeu Sène yàlla may ko ndam bu sedd guy. mën naa yóbbu ci Eumeu Sène. non mais Sa Thiès mooy ñëw ba rek mooy mooy mooy mooy moo des waaw mooy muusi. ndax ndax da ngeen koy déglu rek. non mais loolu man de man bu ma doon bëree ak moom moom. Ah. te Eumeu Sène bëru mag la. waaw Magu Sa Thiès daan na Magu Sa Thiès ñaari yoon. Sa Thiès moo nekk koo xam ne mooy wuti te yow taxaw déglu ko. maa la wax loolu te dama jël xam naa ko. aca didi esaay daa beesaat daa beesaat daa beesaat barke Seexul Xadim Pokola lis nga ko di ñaanal Pokola yàlla may ko ndam waaw bu bañ a yàkkamti waaw kese maa leen gën a kontaan am leen jàmm yi dafa ngoog yéen a ngi de lépp a ne tout possible nag.